mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon a déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon a déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 بنعمة ربك بمجنون Euh, mbokki internet Tawfekh production bu leen fàtte également bës cloche bi abone ngir topp suñu ay information suñu ay vidéo ngir am ko en temps réel wax nañ ko sànq bokk na ci également leneen ci actualité soxal na euh, lu doy waar lu reetaan lu xoromu mooy imam ak naayin bi nga xamante ni ñu ngi doon xeex bañ dam damante ba imam ba sax moo ko dam euh, ma jàpp ne li wolof naan ku bëgg ku mu fanaan ak ku bëgg ko ko te jël bunt bi waru leen boole yaakaar naa ne bu noddukat amul <laughs> imam bi du taxaw il faut ñu noddal ko li xaamaal ko mu doog jiite julli yaakaar naa kon ñoom ñu bokk cadre boobu war nañu war a mën a am benn euh, convergence boo xamante ni benn entente boo xamante ni bu parfaite lay doon malheureusement tel n'est pas ci yenn jumaa yi loolu nag lenn nag indiwu ko lu dul jumaa yi ci bëri yàlla nag bu dee moo tax ngay jiite ji yu bëri di nga ko jomm mais lu tax léegi jumaa yi xeex am loolu la ñu war a posé wu question parce que jumaa yi léegi limon bi dañ koy fay weer kan moo koy fay autorité locale bi politique politique bi moo koy fay administration moo koy fay hmm? euh, moo koy jox privilège yi mu am yëpp kooku moo tax tey jii lu bari jumaa yi bëri nga gis xeex am parce que politiciens ñoo ci dugal seen loxo jumaa yu ci bëri politiciens yi ñoo ñoo ci dugal seen loxo administration bi moo leen di fay moo leen di fay donte loolu sax dara nekku ci waaye xaalis dafa seytaane seytaane goo xam ne ci mbirum jaamu suñu borom bu ci duggee rek dafay yàq dafay yàq souvent aussi beneen fa facteur social mën na ko indi imaam mbég naa bi dañoo am problème boo xam ne si à l'externe ñu daje ci jumaa ja wane ko fa est-ce que loolu lu baax la est-ce que dina honoré kiy jug këram di ñëw di julli si jumaa ji est-ce que du yàq deru ñu ne imaam rek ñëpp xalaat imaam yi aloo ko benn la rek benn pompeter ci ci saako mënu tax ñu ne sa saako bi yëpp yàqu est-ce que loolu donc dañu war a defaat jàngat bu baax ci société bi ñu am imaam mooy tuddi doom imaam mooy jiite ku fi génn àdduna ku jàq si diine moom ngay ku gàq moom ngay dem mu gàgganti la est-ce que kooku buñ ko gisee ci yoonu comportement yi ñun kon ñi leen war a roy nu ñu war a def est-ce que tiitaange du jor du du jot ñu ñu def ko dafa ñaaw yenn actes yi rafetul yenn actes yi néegu jaamu néegu yàlla néegu jaamukaayu yàlla xeexawoo sa kër xeexawoo ca mbedd ma nga ñëw ba ci jumaa ba ci jumaa fu ñuy jullee di jaamu suñu borom néegu yàlla nga di fa def yenn actes yi c'est honte et c'est malheureux et c' vraiment des choses yoo xamante ni est déplorable te da du lu bees de xëy na bii daa feeñ bëri na fi ay juma man gis naa fi juma boo xam ne ajjuma kenn jullit ajjuma ndax dañoo war a fay ima euh, kay jiite imam bu fa nekkoon des gaañu na ke kenn ku ne samp sa nit indi parce que lan privilège yi ñi am ci euh, mairie ba lam leen di jox yow est ce que li la yàlla jox gënul baax loolu malheureusement ima li ma koy faral di wax juma yu bëri maison de retraite la da ngay dem liggéeyi nekk ci sa ndaw foo def la neex di liggéey topp say activité ba màgget maison de retraite nga ne xaaral ma dem fee def fa sama maison de retraite di njëkkante jiite ya demoo ca daara ja jàngi demoo xuslu ji demoo nekk ci ta yor daara di jàngale di forme da ngaa nekk rek ci ndawalu buur jumaa yu bëri fii rawatina dakaar nekk si loola neex nekk si loola neex ba màgget ba mu ne ba nga waree jaam yàlla jaamoo yàlla nga ñëw nag maison de retraite ma wax sëñ Mahfous Mbacké daan ko wax ne damaa dem Europe ñu naan ma seen dëkk Sénégal moom vraiment dëkk diine la ndax dafa bëri ay jàkk ne na ko mu ne ko maison de yi kay ñëw fa bëri maison de retraite xëccoo rek yan ci yàlla musal moo tax euh, ñu ngi koy musluwaat moo tax Serigne Touba Xaadim Rasul ñu ku jara sant la ndax jumaam ju sell ji macha allah bi ñu koy liggéey Cheikh Amadou Fallou Mbacké loolu la ci doon bañ. ba tax sax bëggutoon lenn iblis laal fa taq fa moom Cheikh Mouhamed El Fadel kon ñu ngi wàccewaat foofu suñu kàddu nañu xoolaat delluwaat ci suñu borom àdduna bi jërul kër kër yi jërul mbërt mbërt jërul xaafar xaafar yi jërul xaabar xaabar nañu ànd ak dal ànd ak tey këm suñu bopp delluwaat wàkkilu ci yàlla suñu borom moo laan tabaraka taala te moytu ni ko yenn والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu danañu def tànn bu njëkk njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun